jeune chambre ay ndaw la ñu am dix fukki at ak juróom-ñett jàpp ñeent fukki at ñoom ñoo boole seen doole seen xam-xam di œuvrer pour indi ay solution ci problème yoo xam ne société bi da koy jànkonteel loolu nag boo ko boo pour nga def pour jeune bi mën ko def dañ lay tàggat ba tax na ñun jeune chambre dañuy former suñuy ndaw ne leen dem leen ci seen communauté sa koñ bi nga dëkk nga xool yan problème moo fa nekk nga indil ko nga indil ko solution solution nag du ñu yem rek ci solution parce que solution euh, do doo boo ñëwee ci dëkk fekk fa problème bokoy régler dang koy régler de façon durable motax ñu ci yokk de façon durable des solutions durables voilà légui nak lu waral dépistage bi nak tay parce que dañu gis né dépistage dafa cher amna ñu bëri bëgg nañ ko def wala amna ñu bëri amna ñu jangoro bi mais amuñu moyen pour dem dépister wu wala ñu dem fu ñu wara dem moi tax nag ñun ñu and seeg suñuy partenaire ku melni ni Techno la Casamance ak mairie Gueule Tapée Fass Colobane ñu jappalé ñu bolé suñuy moyen ñew ci commune bi def ko gratuitement pour famille voilà pour aussi sargalalé len parce que mois de mars weer bo xamné la ci lañuy sargalé sargalee d'habitude le 8 mars lañ ko doon def chaque année 8 mars lañ ko doon def mais ak li fi jot xew motax ñu pousse ko ba indi ko tay le 27 mars juróom fukk ak euh, juróom ñom lañu ñu euh, vacciné gum instant bi mais objectif bi 500 femmes la juromi témèr la mom lañu wara war a dépister tay bu soobee yalla loolu mo nek objectif bu tey bi tay am nañu yaakaar ne dinañ ko atteindre. waaw parce que ñëpp xam nañ ne eh, feebar bobu cancer du col de l'utérus eh, pour nga mën ko faj effectivement lu eh, lu 10 la ci koppar donc ñun ñom bu ñëwé fi fii dañu koy defal gratuitement vraiment dañ leen di sant di leen gërëm. Et et puis ils l'ont fait à un bon moment parce que tout le monde sait que le mois de mars, c'est dédié aux femmes. Donc, euh, comme nous dit, et nous avons fait le 8, mais avec euh, les situations que nous tous nous ignorons pas, nous avons fait le 27, donc nous avons fait le santé de la nous avons fait le le maire ne partenariat avec vous maire ne set len Cheikh Diallo ak ndey Marème ci batam mu ne Ndeye Marème li ma la waxoon ca commencement ba parce que y a 18 commissions boy xol na commission santé rek mo ci yëngatu parce que dafa tolok tam tolok jamonoom le 1er mars rek lañ fi defone dépistage cancer du col de l'utérus ak 20 spécialités on avait eu 544 malades ak docteur Rose Wardini man nekutuma octobre rose ni mois de mars année Rose la nek dama nek commune Rose Tanak nak madame Balde ci baxam ak yaatuwaayam war ñu indil appareil mammographie fi ci sa suñu poste de santé bi fi ñu bëgg ko def nak année de dépistage dañ dan dépister ay fan wala ay wèr ñun légui duñ ko bëgg def bés bu nek ci commune bi ndax ño nek nak ci cœuru dëkk bi le département de Dakar sur les 19 communes d'arrondissement, Gueule capé face Colobane cœur bi li tax Macky bëgg fii li tax suñu partenaires yi bëgg JCI parce que ça fait 15 jours que ak ñoom